mënuñu nekk euh, région bi nga xamné bu université six universités, buñ ko défé digënté Dakar Thiès euh, Saint-Louis euh, Bambey ba Kaolack ba Kaffrine mu def ben université Ziguinchor def ben université Saint-Louis ñun suñu université ñu bañ ñu ko jox dañoo japp né depuis 2013 waxtaanoon nañ loolu ba président de la république nangul ñu ko il faut que université bi mu am ñu mu ñëw encore né dina ko def donté wax nañ né choisir na ben coordinateur choisir coordinateur de projet amna solo mais loolu euh, ndaw na trop par rapport à xaar luñu bëgg ñu nommer le recteur nommer les doyens de différentes UFR ñi nga ñoo véritablement diriger l'Université du Sénégal oriental donc loolu lañuy que xaar ci président ci walu hôpital bi suñu hôpital moy hôpital bo xamni dafa poste de santé parce que dara amu fa lo xamni dafa Nous euh, hôpital ñun amuñu spécialiste té ba pare jumtukaay yi nga xam quelques spécialistes yu nek nga xam ne bu ñu tamit quelques mois lañ fi def wat il faudrait que ñu fexé ba spécialiste am Tambacounda nu mu bon bon ci secteur bu nek service bu nek mo am ñaari spécialiste mais bokk na ci li nga xam waxon nañ ko président de la république té bëggu nañ ko mu wax ñu lu leer ci démarrage bi moy réhabiliter euh, réhabiliter train bi fexé ba train bi ñu mun ko réhabiliter ñu mën ko mettre en en fonction donc dafa am solo mu nek lo xamni ni aussi il faut que ñu liggéey ci mais aussi amna lu ñu waxone moy euh, terminal à conteneur ñukoy koy woy port sec tay bu ñu bëggé régler problème xew ndaw ñi bu ñu buggee suqalil Tambacounda bu ñu buggee position mi mun ko jouer muy position sous régional il faudrait que ñu fexé bu port sec bi am. port sec bi nak ak terminal à conteneur bi pour que mu am il faudrait que président de la République mu wax ñu lu leer parce que dafa nek lo xamni nangulon nanguloon nañ ko. tey ñu ngi wax waxu xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi du yem rek ci ay bale du rem rek ci jëmbat ay garab mais xëyu ndaw ñi pour mun ko régler il faut que nga def ay këru xëyukaay Tambacounda loolu la tumuranke te jàpp nañ ne président de la république bu fi ñëwee leneen luñ la ñuy xaar ci moom lu dul ay wax mais dañu bëgg mu nekk ay euh, acte concret loolu nag yàggoon nañ ko wax lu tax nag amul ba léegi juróom-ñeenti at ci ginnaaw depuis 2013 c'est parce que ñi nga xam ni ñoo yore euh, baatu askan bi

na fait que leer nga teg ko nee nañ dinañu avons ay yoon loolu ñu ngi koy sant gërëm ko mais que gis ne Tambacounda de est en retard par rapport ak lépp lu mu def souvent yoonu Promoville loolu Promoville kenn nous ko ndamoon donte lu baax la yoonu de linéaire lolo du dara Boko comparer ak BRT bu ñuy jël milliards yoy ñuy def kon lu ñuy def Tambacounda du dara de département département comparé région bi nga xam yaatu Sénégal aujourd'hui dañuy bëgg euh bi euh, poser problème donc lu ñu bëgg président de la République bi 1000 kilomètres la 1000 milliards la euh, euh, chemin de fer Tamba Dakar Tamba Kirira. 100 100 milliards la de wax ne ko ko a kon président de la république fi nga def milliards war nga fa mëna def 100 milliards. té 100 milliards boko défé dafa bëri ay dëkk yo xamni dañ leen di sukkalindo en même temps fi ba donc loolu motax ñun xaar du ay wax du ay réunion dëgg na def conseil présidentiel conseil présidentiel bobu amul jëriñ parce que conseil présidentiel pour pour la li nga xam ne lañ soxla té lu ñu soxla waxon nañ ko depuis 9 ans dañu bëgg président de la République mu jël ko en charge.